ngi len di nuyu bu baax di len ziar Abdoulaat kol gu wex gi da xana la paix la bala ñoo ñew rek dañuy féliciter Dieye production bu baax eh wëlbatikul ni yow mais combat bu neex nga ni bi mi doga taxaw nak bari na ñu waxoon ne du combat waye tay ku ñew gis taxaway bi nga xamne mom la Guiro taxaw ak changement bi am ci mom di nga xamne kon bëgg na lamb ji waye damay njëkk ci xalé bi nga xamanteni comme temps bi dañoo xoj rek muy bulldozer di ndaanaan boo xamante bi sa bitel bi téye ko per Thiam ni wala muy champion bo xamanteni bi nii Daniel Kombam. lu mu def ci lamb dernier combat am <laughs> nga gis ko digante mok machallah mu wane wat bopam bu baakha baakha baax ci bir lamb ma ngi ini takusan gi nga xamanteni bi ci le beure won ak liy coor numéro 2 bëre koog kayre mu bokon ko ak euh bulldozer Serre kayre boy barni ak sambat Seras. mu génnoon ci paix macha allah sa digganteeg liy coor numéro 2 duñ ko fàtte sa digganteeg gin bu yof duñ ko fàtte sa digganteeg brise de mer duñ ko fàtte champion yooyu yëpp nga bëreeg ñoom daan leen avec la manière ñu la ciy félicité bu baax a baax a baax ba sa dernier combat ñu gis nga bëre ko ci jom bëre ko ci fulla ak fayda gañee ko avec la victoire ñu la ciy félicité ci biir loolu yaa ngi wàcc ci mbappat yi aussi tamit di ci wone sa bopp kon dañoo xam ne jéey combat bi mu taxawal juumul boo xamante bi nii yaakaar naa ne top 5 yàgg na fa lool ñi ngi fàttaliku sa digganteeg Bougane top 5 la gëj na fa génn ñi ngi fàttaliku sa digganteeg Junior top 5 boobu tamit yaakaar naa ne yàgg na fa lool ñi ngi fàttaliku sa digganteeg ak Tonnerre macha allah top 5 ga yàgg na fa bëri na ay combat yoo bëri tey nag combat bi taxaw yaakaar naa ne nag combat la bu doy waar bil maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaar sama waa mu doon maa ngi nuyu bu baax a baax ginnaaw ma sant yàlla maa ngi jul si yonent bi di sant sama ñaari wajur di ñaanal sama yaay yaara xawé ko ci aljana yi gëna kawé di ñaanal paa bi yàgg fek njabot gi di nuyu suñu père cham di nuyu jey sen suñu père suñu papa Abdou Gakham ndjay gaay fi ne assistance bi yépp di nuyu aduna di nuyu famille omarienne bi yépp xam nga ñepp ñu ñuy ñaanal rek ma ngi di nuyu bu baaxa baax di gën ziar wa Casamance arrondissement fimga bi yépp ma ngi di nuyu bu baaxa baaxa baax di sant yalla bu baax tay moy le 8 décembre nim démé demee sax mais tay gaay ñaanal sama yaay xam nga ma bàyyi ko fa ñëw signature bi sax su gi gañ ma waxoon moo tax ma bàyyi ko fa ñëw mais xam nga dañoo mujjee toog ba heure bii mais loolu yëpp ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di wax di ko ñaanal yàlla xawee ko si àjjana yi gën a kawe di nuyu ñi ma àndal muy kagi du pël ak suma ma fiyaa xol sedd bi booy ñëpp maa ngi di nuy bu baax a baax di ngeen ziar Badaga kaa maa ngi di bëggee di di nuyu di nuyu buur géwél suma frère suma wépp maa ngi koy nuyu bu baax a baax Guiro Seras kaay jege si ma tànc leen ma man rëy ma non ëpp na ëpp na maa lay waaw moo daan maa lay fay. ñoom idée salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp. di wax auzu billah bismillah inna wali yàlla di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall di wax jaarama maam Saliou Fall borom daaru Xofoor maa ngi sant waa daaru Xofoor ñëpp ñu may ñaanal di sant waa Bulel ñëpp rek di sant maam làmp bu baax a baax di nuyu Baysal Fall daaru Bayre ñëpp ñi may ñaanal xama nga waa Xuru daaru Salaam Diwoli wa Dindé Kër Ardo ñëpp rek di sant tamit xam wa war jaxal waa Saato faan li kém ñëpp ñu may ñaanal di nuyu wa parcel ak wa Seras. combat bi dafa taxaw amateur yu bari ne giro Seras sax jëlati na combat la wax parce que amna ñu la ci xébon mais ak taxaway bi ma gis parce que gëj la gis ñi la joxutone favori ci combat bi lo leen di wax. non mo du problème de ba mu duggee si ba musuma bëree ku tolok man waaw ba may commencé beuré fim beus tok né ne la don tok comprendre nga suma démé boy tok fi fii damay sant yàlla ko wa comprendre nga man awma problème adversaire ak tay ak yoy non hmm, yàlla ñu si yalla yobok jam mais adversaire bu coriace day xex di beuré di beuré di xex wa mom lolu mom la concerné limuy def mom la concerné man limay def laa xam ko wa té lima waxone sama koñ lay waxat fi da am lu mu wax ko wa xam wax te dégg na ko man tamit dama koy wax nijaay pour nga dégg ko quoi li nga wax noonu dégg naa ko mais dama lay wax loo am na du deñ maa la mën maa la pour doole maa la ëpp sañ-sañ maa la dàq bëre maa la ëpp fit te buñ duggee fee barki maam Seera Fall ma wan la ko. sama yoon newu ci. waaw mu doon premièrement moom dama koy nuyu bu baax baax parce que dama seeraan benn sotteem am benn booy yu may saaga mu ne leen saaga loo ma xam nga loolu tamit di ko wax sama supporter yëpp di woo ñëpp si non violence waaw moom nag li muy wax nii mi ngi woon naat si guuxum soow man ku ma xam si gàmb xam na ne yaakaar naa ne yaa ngi wax man tamit maa ngi mës am adversaire bu toll nii si gàmb yaakaar naa ñi ma mës a duggal si géew ñëpp ñoo may ëpp wax ñoo may jox favori maa ngi man mbër moo ak ndig ak baat maa nga mën kii boo bi sifré ma dox si kaw bu dawee ma fekk si ko daan ko bu ñëwee sama kaw ma jàpp ah, xamee nga kuy daw mbër xamee nga kuy daw non dama lay laaj ndax xamee nga kuy daw

bu ñu yeggee fële laa la wax wóor na maam Seera Fall léegoo ma la dama naan la indil nga jox ma. mais est-ce que xeeb loolu say wax nga nii rek non man du ma xeeb xam nga tey kuy dem gi simple di bëri di dajeeg ay booy ndaw di dajeeg ay kii. li simple ñëpp mën nañ ko. da nga man damaa bëree mbapat ba sonn. kuy dem simple dama kii mënu ma koo sama morom nga. ñoo tolloo kii su ma ko xeebeen man déggoolu ma ko waaw déggoolu ma déedéet loolu ñëpp koy wax loolu adversaire bu ma dajal nga ñëw nga ñëw signature di nga wax mais kii laa wax kii dinaa ko dumate naa ko daan. barke maam Seera Fall yaa ngi doog am combat. waaw mu neex ma mu naqari ma déggoo ma de amaana sax làmb la. dinaa ko dumate dinaa ko daan. wóor na maam Seera bu dul woon làmb laa la wax yow doo wax ma wax. waaw parce doo wax ma wax. làmb na maam Seera Fall bu ma jëflanteeg moom ba pare wër na alxuraanu karim kër jaay kër jaaji njaay laa jëm. kii maa ko gën a teg fukki junni yoon. waaw loolu moom ay wax ay waxu signature la nii rek mais kii bu duggee si géew ba bu sifee génn suñu diggante ma dox si kawam dinaa ko dumata dinaa ko daan del wax rek le 25 yàggatul xam nga tey jii looy xaar maanaam loo bëggul mu loo bañ mu ñëw rek bu man maay wax man maay wax man maay wax man maay wax ko su ma neexee yow doo wax signature bi yàqu koon fi sa ñaawa bi <laughs> xam nga xam nga tey jii yëpp gàmb nga xam nga sport nga man yàgga dogal na ne tey jii samay morom ku ma si gënul baax par magas gënoo maa baax par magas nga def victoire 2 défaites mooy sama 15e combat incha sama 13e victoire bu soobee yàlla di nuyu nag bu baax a baax suñu suñu papa Dieye Sène bi mooy sama septième combat mooy bëre si journée am di ko nuyu bu baax di nuyu Abdoulaye Ndiaye di nuyu sama manager bu baax Matane Ndiaye. ok booy wooteel. xam li mu wax doomu gor nga doomu gor laa fexeel ba na nga ko dëggal. yow dëggal sa bopp rek. arrière arrière waaw waxal nga mais tamit grand combat bi drapeau kan lay doon defal ni. voilà ma ne ko mu arrière muy bibis bibis bi bibis yéen a bokk koñ xam naa ko mais jaru nga ma koy woon arrière waay tamit. ok mais mais bàyyi laa defal ni defal ni da def ma nii. dafa am lu ma bëgg a jàllale tuuti nag maa ngi tuub ndax temps bi xoj nañu dafa am suñu benn frère bu fi nekk ci làmb ji muy booy ëmma ci ñi doon takk sponsor yi ci la bokk te yi il est moo ngi nee taxaw mooy borom simis bu rouge bii dafa war a opérer dafa am problème mu faar aussi tamit may ñaan aussi tamit lépp loo xamante bi nii waa làmb mën nañ ko ci nañ ko ci jàppale parce que bari na suñu ay frères yoo xam ne dañuy nekk ci làmb di ci sonn gaay ñu ngeen di woo woo ci combat bi nga xam ci sa xam nga maire bi gal jaata ñu ngi wo ci gàmb ji bu baax baax a baax monsieur maire Babacar Ndaw sama mafia bi ñu may àndal waa Marika waa Yëmbër waa Bun wa teri Marin wa ben barak ñepp ma ngi di wo ci combat bi na ñepp ñew japp ci japp ba ma japp giro segas mi duma ko daan ko. ay Guiro woote. waa xam nga damay wo quoi wa Zowal ku ci melni cho munde sidat Père Belez tonto Ousmane xama Père Jean kep ku yeewoo fajur rek ma lay wo ci combat bi wa ndaroñ sar jof yor xama sam papa Idrissa ndjay Fatick ma ngi lay sant bu baakha a baax di nuyu waa war jaxal bu baakha baakha baax raison de kaolak wa siba sor awma sen fay ko wa di nuyu suñu waa dëkk xam nga kala mbi mbimi e mbimaami min noddumaay combat no feewi eyi eh, kala bundunke way wonde kala to fuutanke way wonde min ma duwaaw waaw di ñaanal ñëpp jàmm nag doole Sidi Ibrahima Fall ayca legi commandant nee ñi fete ak Guiro Seras ñooy njëkk a ñi xaar